vite fait ñu ràññee ko ci crème boo xam ni kat maanaam boo ko defee sa yaram yooyu duñu la laal ràññee ko ci cuuraay boo xam ni day dàq yooyu ràññee ko it ci ñaari insecticide yoo xam ni fu ñu gis ay gunóor ak mbóot rey ko ràññee ko it ci puudaru mbóot boo xam ni suy mu ne ngalañ waaye it ñu daal di am pat dentifrice am boos kon laa gamme vite fait moo leen di may waaju baax lay Senegal, amna na ray mi ci rew mi de war nañ ci wax ray rek chaque jour radio yang ngi nañ diw diw ray na dom ja agressé nañ diw te ñi ray ñepp da am importance ci rew mi ñi nga xamné amuñu ben importance ci rew mi ñoy ray ñi am importance te dañ ci wara jog ko ko xamanteni dafa xey di wuti pour njabotam ab vaurien ñu ne ko foofu rey ko moom perte ni perte njabotam Ray ray ray ni ray si zero zero ni muy muy yomb ah jaja fis. Wa booy yo gëj naa laa gis de maa ngi nii ngi si jam? maa ngi sant bu baax mais yow booy ma laaj la ah booy yow xanaa boxeur nga woon ah lu man gis muy ngay def tey nag sincèrement chaque jour dama lay bëgg a def nante mais yow xam naa ne mënoo nekk nante gis nga depuis bu corona xew ba léegi ñëpp ñi la ñuy nuyoo si loo ne ça va ça va ça va yaa ngi si jàmm ok booy bàyyi ma sama ngaaka gi rek nante giri yi ñëpp ndax da ngay suubu ci lo loo wurtu suub ñu ne diw gëri reer ba mu ba mu dee yow da nga nga ko lu mel dërëm talu la naka mu nag lépp tam feex yaa si jàmm maa ngi boy naka njaay mi njaay maa ngi nii mbaa mu ngi dox mi ngi dox bu baax de ki laa bëgg lam laa bëgg lam set lam set waaw amna lam ci vite fait baa ngi nii am nga am na vite fait fa génn ak produit bi ñuy diw fii si kii bi ah pour mu sa bala yow lay wat sax ba pare non sama sikkim lay wat ah sikim waaw dafa am leneen lu ma war a wat non non da da kii kii bi quoi yii. d' ni nga taxé kat moo tax ma naan wat. ni ma taxé cest à comme non bal man du dara dégg nga bi bii bii bii la bii bii bii boo defee fii ba mu weex ni ba mu weex tàll jëlal dawal wat wat wat bu xasse ba set du am ben pitch te day liis ak lo mën wat day liis day set wécc doom pitch ok jox mo ben la set ak kii bi benn produit ñaari paquet la am. waaw boo xam naa nag ma wàccee demee naa fi jaar fay la. war yàlla. maa ngi nii yoruma dërëm. sa diggante un franc yor wóor na transfert laa yoruma. un maa ngi nii. Omi. Oh, eh mu ngi dox. ça ok mais yow gis naa la mais. la dernière woon non. noonu demee nag. ah ouais léegi li nga defoon kon yow tu t'en souviens. non mënoo comprendre saa may foofu. non xamoo fu may taxaw. ah ouais sinon nangu yow da ngay dem soirée di taal sa gel comme ça. non non c'est pas ça. Ah. dinaa ànd sama gel di ko di dañ maa woo ma am benn. ok kii sa ah, jëkkër la. non non eh, eh, eh, dara. waaw yéen élèves yi. yéen élèves yi. Ah. mun leen a góorgóorlu ci njàng mi jéem a indi bac ci réew mi. d'accord dinañ ko indi incha farantu fóonante ba kañ. la fi defee yow. Euh, man dama doon jënd benn dentifrice ak benn broche à dents. père jaay ko. ok tonton. est kon du ma mujjee jël paquet bi. taxawal lool jaay ko léegi jox ma bu nekk benn paquet. xoolal loolu neex nga jël ko. <laughs> yaa joxe lii. y'a problème. y'a pas de problème. ok. loo soxla benn rek nga soxla wala. jox ma bu nekk benn paquet. ah comme que dix mille yi mën na am paquet yi du n'est-ce pas. da sa nga wéccé ak euh ok ak bi bi na ci man lipo Wow, lipo bi yow xana nga jaayat non non suma démé sama rakk yi ak sama sœur yoy ah sa famille eh, famille lipo wow. si si famille lipo yi la ok ayo bébé li neex na trop merci beaucoup ya ko bonal ko comme jënal comme may la ñaari junni kay merci waay ok merci ton temps vite fait ok ciao ciao do ñamal sa bay yaay say say day ñoo wo beut rek frère oy ma eh waaw dama sama wéccé weccet ban tantaw laa la jox waaye na ma jox cinquante tantaw Legui nak xam nga lu ma la bëgg xamal gis ngeen doom seen alal yi de len ci lek. De len bu lek ci seen alal yi di ci faccan soxla Jigen rek mën lek lekk seen xaalis xoolal li nga taxaw fi ak li nga fi waat nan ma billahi wallahi yoro. Jigen ñew fóon la ñaari fóon nga may ko ñaari jooni. da leer na ma ba ngay genn sa kër sa boo demee sa lañ la nga na yoro. non non bi may genné 10000 dama joom. Wa. Yaay ngi Joom. non dama yaakaar ne taw laa génne nekk na tantaw laa teg ci kaw taabal ci jëlal tantaw yi taw yi nga jox ma sama na dee doo ma jox samay tantaw yow da ngay nay jigéen jóge ci àll ba sa morom bu doom mbuucaa mbuu ci sew yi nga xam ne fukki dërëm buuru suur na ko foon la foonaat la rek nga génne tantaw joxe ko ko forcé affaire yi waaw mais maa tey forcé ko damay jaay benn pat la la wax ak benn ma sama yëf damay eh, dem fii ku ñëw ma jaay la lépp man sama foofu xam nga yow benn problème bala nga maa rey gendarmerie soriwu fi de gendarmerie soriwul fii xam naa ci Rema nga jëm waaye gendarmerie soriwul fii gendarmerie Tëngéej a ngi nii gendarmerie Sangalkam a ngi nii sous ngi fii. gendarmerie Tëngéej. gendarmerie Sangalkam di nga xam mën nga ko seqalee. y a un violeur. du ma delloo ci boppam kat. vite fait moo leen di may. waaju baax.